billahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafahu xawli wal aaxibatu lil muttaqiin wala udwaana illa ala zalimin di nuyu peuple sénégalais yi di nuyu député yi monsieur le président ci yow laa waroon njëkkee nuyu la di nuyu monsieur le ministre di nuyu ñëpp di xam ne li ñu fi dajale tey li ko waral muy ñaar am loo xam ne dañ ko bëgg a yokk ci constitution bi am ñoo xamante ne dañ leen jiiñ corruption te defe naa ne lépp lu ñuy tardeel ci àdduna mooy ñàkk dégg waxu yàlla sunu borom ndax sunu borom moo njëkk a bañ corruption wa yusxawna fil ardi fasada inna allaha la yuhibbul mufsidin yàlla bëggul corrupteur bëggul corrompu kon nag politique yi nañu éviter loolu parce que bari na loo xamante ne politique yi ñu ngi koy def te mi ngi taal réew àdduna bi bu yàqoo rek nit ñi ñoo ko yàq d'accord nañu enquête parlementaire bi parce que information dañ koy vérifier loolu la yàlla wax ci alquran yaa ayyuhal lazina amanu in jaakum faasixun bi nabain fatabayyanu information dañ koy vérifier kon nak dañu bëgg mu leer parce que peuple sénégalais bi mi ngi toog di ñu kon lepp luñu def na leer li yëpp da fay jeex xaaliss neex na torop waaye jege yàlla moo ko gën te nag bés bu ñu dugalee suñu bàmmeel kenn du fa nekk président Macky du fa nekk président Khalifa du fa nekk Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko du fa nekk keneen ak keneen ak keneen du fa nekk nañu ragal yàlla ci li ñuy def te kenn ku nekk sa téere bii dinañ la ko jox nga téye ko ci sa loxo ndeyjoor te kenn ku ne yaay téyel sa bopp sa téere iqra kitaabaka kafaa bi nafsika yawma alayka xasibaa kenn ku nekk yaay liiral sa bopp sa téere jëf kon nag lii ñuy def nii nañu ko bàyyi xel te xam ne dafay jeex maa a kum yan fadu wa maa indallaahi baax yàlla nee na li ngeen yor dafay jeex te man li ma yor du jeex foofu laay tëjee sama wax jërëjëf